magnifique toute la solidarité de la nation, voire de la République en sa haute personne du président de la République, pour toute cette solidarité auprès de nos religieux, auprès des familles religieuses. C'est ce qui me justifie moi-même mon arrivée ce matin ici à Seyou pour pouvoir vous accompagner, venir aujourd'hui être présent à cette belle manifestation. C'est l'occasion aussi de féliciter et de remercier tous les acteurs de l'administration. C'est ça une nation. Une nation regroupe tous les enfants de la nation. Aujourd'hui, le profil des uns et des autres prouve que Sénégal, on doit continuer à prier parce que le Sénégal est une forte nation. Mais vous allez me permettre, avant de faire votre discours, de m'adresser à mes concitoyens et leur parler en sauce. Euh, Banco Molbe, Mbalbe, le Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le haut conseil des collectivités territoriales, maire de Djibanar,

i ko jaw ko ñiŋ bankoo bee ntel ntelu la soto dooyaata tubaaboo ko ñuma loŋ fentaŋo ti moo moo mumu ka dalisi kemoo dépensoo no luŋ kono no loŋ dollar kiliŋo a ko mu fentaŋo ti i ko ntel la jaŋ mo ye moo taworo ni moo woro bulo mu ka dalisi keme dépensee noo ni ko ñeŋ man sia siyaa i ko ntelu la fenta yaata niŋ pa niŋ maŋ noo ñaŋ la la mo la ba wo ko moti ñim banko te kere ala ni banko di mo manso ay kere ya du mota kele na magi del banko di wutu folo ko ra ko ra bu folo ko ra du le folo wala ko moti ya ni nya gibe wala dam be president remercier la kende ke yalla munatin na nte han ya je makka ja han moti indépendance oni makila na te mo ñi sañi tanulo mun tamata ñi banko kan na casamance mume laɓe kono région keline sototo yata zigancho la fof ko mara komala ñin saji talluloɗo fulol kono milliard kemeni milliard ta warawla wala dépenser pour que banque dara ñin saji tallulo fulol kono atela nani sañtema ñin région keta région sabati a keta région de il iɓe faye le tel fan ɓen faye région de sédiou ani région de kolda nte lañu région drone doron doron kono ñin sanji ko kono milliard keɓe ni milliard tan seni ni wula dépense en wala ñinti signa fula mun kene casamance ɓe koto signa tan luɗo koye ñin witandile ko a nga ñu beññele ha a nga ñu beññele ha kende ke banko be karfarin banko dingol beele ma ba nte manke wu folonto politicien to o tambitale politique o mumunati ila moolu la jaari baluwo ye fisa la ñana baluwo ti ila e jaari ko baluwo ye fisa la jaari baluwo ti wolon kumo ti ni ye jaamewo la ko fay ko seru ma ma do ko la bari ya ñana ya ma bari do ko man ko ja fu ku ketale tende deki ni ya je jopunda ponto yankili makka somanda ka fo ñako pom tel la ko 3500 hectares be tijala mo la do ko la

ila sidulaɓe noɓijel bari fana ala naala ya lon ala e momo la sindi lo dula to do fanante mo sinola mola lo dula to bari be ye nafa soto banko kanne mawrole nafa soto kende keji banko kan karannali nafa soto kende keji banko kan mul fana be politique ola kende ke nafa soto banko kan moɓe le banko so nafa soto banko kan bari be daabi fo yo di ñonna nimmanmo buñamote mol buñala nim la manna alfal buñamote na alfa buñala ni manna la buñamota buñalannoto na alfana manna politicien ol buñamota e buñala ɗuɗi kol koyta sika jawjay ka fole alnana holon kumoto woto banku o banku mum tata banko ɗin ole a samba naal sontañe banko samba mba sambalala kende a ñim bankoɓe talla kende ke mais banko ɗin ole wa sambal fole moɗa waɗi ballo makko kay haaji kendoji ya ke mna musoɓe kendode nde sañi tallulo ñetara ñon saɓola ñon saɓa kuwomola nafa towla sañi tallulo be koto mole ñon fal jande mole ñon saɓa jande ay mune nafa dara e kono tele fenta yata moɓe ko bi kelo mo munete yeyla banko mol fasa kan ala yeɓondi bata ko non ko drone non wote kenola saño ñon ordonné wote kenola saño ñon buña wote jontan tag mo kuma kendol fo ñoye alal tamo alati gontol be bar jim banko le fi satante abou job si ja wili kedin ko jim banko mbatel kan mbe la tel ko wolon ko moti ñim banko le fi satante abou job si ja wili kedin woto ñe banko la ko mo fo ba ñim banko muta ba man banko muta banko be tulambule wo droit de diamot do jim banko bi taka de mbel monsieur le maire la sansa mbaji ni kala ñin saté ko no ka bi la jeli ke ko do di muna bourse solidarité a ko ta la ni monsieur le maire ani woro ani saba wolo mun ti banko moo be te kañannoo la sembo la ka biɗo kono moo de te kañanno sabbo bari mun fanan sembo doyata banko bankole kono dimbal le kono bala faale ko ki oto ñamuta ñoom fe ala barka ku ci nekk ci di tàmbali nuyoo gi ci kilifa diine yi fi nekk yépp ñu jógee ci fii ci Karanta ba ak ñi nga xam ne ci yeneen gox ci région bi lañuy ñu ñëw fii ci Karanta ba maa ngi leen di nuyu ci turu délégation bi ma àndal waaye di leen beral nuyoo tam ci turu njiitu réew mi

mbokk yooyu nag bu ñu ñëwee senegal mel na ni ñëw nañu seen réew ndax senegal ak dëkk yu ko wër moo xam Gambie la Guinée Bissau Mali Mauritanie Guinée Conakry nga xam ne dëkk yu ñu amal frontière ba weesu sax dëkk yooyu jàpp nañu ni ñooñu suñuy mbokk lañu Nous nañu ñooñu Sénégal seen réew la ndax suñu kilifa yi sous-régionale tant intégration régionale la ñuy dox lépp luy dëgëral suñu diggante ak dëkk yooyu ñu ngi ci taxaw liggéey ca Gambie ak tam ci côté Sénégal journée bi nga xam ne moom la ñu jagleel journée Sénégal loolu yépp ngir gën a bëgg rataxal diggante Sénégal ak Gambie donc am na solo lool ndax suñu kilifa yi dañ ci taxaw di si yëngu di si liggéey kon li ñu war nous ñun ci Sénégal fep fuñu mënti ak responsabilité buñu nous exercer ñu doxal lepp li nga xamné day gëna dëgeural digënté bobu da koy cérémonie religieuse yi nak xam ak yépp ay occasion la askan di dajjo jogé fep ci Sénégal jogé fep ci dëkk yi ñu wër mu nekk moment de communion nekk moment de brassage nekk moment d'union spirituelle ñu war a sàmm loolu nag ndax Sénégal bokk na si lu gën a tax ñu am stabilité ñu am cohésion moy jàppante moy déggoo bi nga Moi, mo dox diggante famille religieuse yi moy déggoo bi nga xam moy mooy bi nga xam mo dox également digante pouvoir temporel bi incarné par l'État et le pouvoir spirituel lolu war nañu fexé ba sam ce sont des piliers de notre cohésion nationale ce sont des piliers de notre stabilité nationale te boo lu koy dëgëral te lu koy firndel mooy bés bu kilifa diinay wootee kilifa nguur gi teew ñoo def représentation yëkkatu kaddu kilif yëkkati kaddu ci nguur gi kaddu au nom de état jagleel ko kilifa boobu nuyu ko ziar ko sant loolu rek mat na lu ndax di nga wër ci yeneen dëkk doo ko am Sénégal bu ko amee dañ ko war a bàkkoo sàmm ko mais waruñu def li nga xam ne day fragiliser loolu loolu kenn waru ko def tey bu ñu fi nekkee fii ci karanta ba wala ci yeneen dëkk yi xam ne dañuy organiser gàmm te yàlla xam na ni gàmm bari na fii ci région Sédhiou ñoo ngi koy sante yàlla di ko santé suñu kilifa itam ndax kuy woote yàlla ci yoon lu wax nga nekk buñu amé amee dal sañ-sañ di organiser gàmmu yi dafa am ñi nga xamné dañuy privé wu dafa am ñi nga xamné dañuy xañ seen bop lu bëri pour mën ñu permettre ñu organiser gàmmu yi ñoñu ñu mata féliciter lañu ñu mata remercier lañu ñu mata respecter lañu moy force de défense ak de sécurité ci différentes composantes moo xam gendarmerie la moo xam police la moo xam l'armée la moo xam sapeur la moo xam sax ASP la ñëpp dañuy taxaw pour ñu am kaaraange ñu mën a organiser cérémonie kon am na ay kaddu yi nga xam ne buñ koy yëkkati dafa war a nekk ay kaddu gërëm ay kaddu respect kaddu considération par rapport à ces gens-là ñi nga xam ne ils se sacrifient jour et nuit pour nous permettre d'organiser cette cérémonie dans